Heavy Mess.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 këy mbir moomu nag nee ñu nii la demee xale bu jigéen bi at yi toll ci fukki at ak ñett tey def classe bu semde ab faram moo ko invité woon ngir mu fekki ko foofa ca mbuur naka noonu xale bi dal di seen kër jël ab taxi ngir yaakaar ne bu yëgsee waa ji dina ko fay arrivé payé naka noonu bi ñu ñëwee ba Padoua xale bi jël téléphone woo waa ji ba sonn jotu ko mu insisté ngir jot far bi woo ko woo ba sonn jotu ko naka noonu nag ki la ko taximan bi ne da nga may fay ndax xale bi taximan bi mu ngi ko jëlee ca Grand Dakar bi loolu amee nag ci la yóbboo xale bu jigéen bi ci ab auberge bu nekk ca Kambireen dal di yegg ca kawam hopplo xale bu jigéen bi nag bi mu fàqee dem nijaay ji dafa demoon ci police bu Grand Dakar dal di koy déclaré moo tax xale bu jigéen bi bi mu dellu see ci kër gi dañu ko woo lanket ko bi ko police yi lankete ci la xale bu jigéen bi nettalee mbir mi nee na da doon dem ca Mbuur ngir fekki fa ak faram yaakaaroon ne bu ko fa fekkee bi dana fay frais de transport yi bi ñu yegsee ba Padoua nag ci la ko woowoo jotu chauffeur bi nag ci la ko proposé ne ko nag comme dang maa war a fay dang may fayee sa bopp nee na ci la ko chauffeur bi yóbboo ci ab auberge bu nekk ca Cambérène forcé ko ba noppi tëddee ko ma ne ko yomb la de at yab xale bu bëggoon a fekki faram ne na sofoor bi yamul ci loolu ndax bi ko defee lim koy def ba noppi def ko jox numéro téléphone am ba noppi tegal ko ci yeneen trois mille <laughs> ci ku la forcé ci yow moo tax élément commissariat bu Grand Dakar texte boobu la ñu exploité ak complicité xale bu jigéen bi ba teg loxo taximan bi man bi nag bi ñu ko tegee loxo nangu na li ñu koy tuumal waaye nag nee na forcé wul benn yoon xale bi nee na xale bi ci boppam moo ko proposé fayee ko boppam ci la ko yóbboo ci auberge ba lii xew-xew way way way way way yi xale moo tax ma ne jàngoro gi dal réew mi moo gën a graw corona laa wax kii tamit ab xale xale bu jigéen la moom it nee ñu ar yi toll ci fukk ñett fukk ak ñeent xale bu jigéen bi tamit faq dem ca mbuur waay waay xale naka noonu bi mu demee ca mbuur ab paa am juróom fukki at juróom-ñeent dal koy fat ca këram waaye paa bi fat bu ko fat ca këram dafa mujj soppi xale bi ab objet sexuel ak moom mel ni ku yor soxnaam <laughs> ma ne waa ji foofu de paa bi dafa mujj jàngal xale bi ba mujj ko soppi ab prostituée buy jaay boppam di ko utal ay prix di encaissé dix mille quinze mille ba waa police bu Saly ko mujj découvrir ba mujj ko loxo nañu ab sérigraphe la bi ñu ko découvrir nag ci la yeneen feeñ ndekete paa defu ko xale boobu kese am na xale bu jigéen boo xam ne 19 ans la am paa bi tam noonu la ko doon jaayee bis bu nekk mu lee ko ak waajoo xam ne handicapé la bu ñawee jaar joxe ñeenti téeméer dem yoonam mais sa xunta ma ne réew mi doy na war ay xale yu am 13 ans di fàq di dem waa xale yi ana seeni waajur ana seeni waajur mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru bés